doon liggéeyee bu tudd Sofitel yéen a kaay gi di réew mi quotidien nee na am na document boo xamante ni exploité nañ ko waaye nag li nga xam ne Nafissatou Diallo nettali na ko digganteem ak DSK doy na waar genn xeetu doy waar goo xam ne fu ko waaye natt daan na koy passé ndax ci atum 2011 ci la mbir mi xëye mi nga xam ne moo jiite woon FMI yéen a kaay gi nee na Nafissatou Diallo nee na DSK daf koo daal di violé yegg si koom caxt caxtee ko waaye nag bu ñu sukkandikoo ci document bi ci avocat pa DSK nee na Nafissatou Diallo moom ci boppam moo bëggoon a si Mari Ngagna ak njiitul FMI la woon yéenekaay gi di Rewmi Quotidien amul lenn lu mu ci bàyyi yéenekaay gi di L'Observateur bàyyi mbir moomee wax ci centre de redressement yu Serigne Modou Kara yi ñi nga xam ne seen xel màcc na jëm ci wàllum yoon spécialiste pénal yi nee nañu Serigne Modou Kara kenn mënu ko cee génne maanaam dugg na ci ba ci bopp ak baata yéenekaay gi de La Témoin xëy di ñu xamal laan bu njëkk dañu doon njort ne justice bi tëddeewul njaaxaanaay waaye nag léegi amatul njort léegi lu leer nañ am nday ak ku ma mu amul nday moo am ci réew mi ndax Assane Diouf mi nga xam ne jël nañ ko dugal ko ci kaso bi jamono ji ma ngi feebar ba maaraday taali te jamono joojee bàyyi nañ koo xamante ni ci lu jëm ci wàllum faux billets ci la doon yëngu te jamono jii ma ngi lambar lambari ci réew mi Assane Diouf mi nga xam ne dañu koy tuumaal ne da doon saaga Moustapha Cissé Lo moo ko dàqa saaga fuuf ndax dégg nañ saagay Moustapha Cissé Lo yi te dara feeku ko ci te fan yi ñu génn gis nañ njiitu réew mi di président Macky Sall daal di koy recevoir yéen a kaay gi de la témoin nee na justice bu tëddeewul njaaxaanaay moo am ci réew mi yi ku mu am day ak ku ma mu amul ndey ana nan la ñu mën a jëlee taalibe Serigne Modou Kara làq leen jant bi Serigne Modou Kara moom ñu bàyyi ko muy jàbba jonge di dem ak dikk lii na xel nanguwu ko ba tey ci biir yéen a kaay gi de la témoin nee na am na ay ndaw yoo xam ne coalition ñoo lànk la ñu bokk dañu doon déposé ab lettre d'information préfecture bu Ndakaaru ñu jël leen mandat leen dépôt loole ana fan la tegu yéen a kaay gi di critique xëy di ñu xamal lan ñu Assane Diouf bu ñu xëyee ne leen faatu na ci kasu bi bu mu leen bett yéen a kaay gi di réew mi quotidien las Vox Populi l'Observateur l'observateur les échos source a xëy di ñu xamal lan ñu Ousmane Sonko gisante na a Khalifa Sall rencontre politique yéene kaay gi ne na en tout gisee Khalifa Sall ak Ousmane Sonko dina tere nelaw Macky ñi nga xam ne ñoom la àndal yéene kaay gi ne na ñaar ñi bu ñu boolee seen doole dina saf sàpp ci Macky Sall yéene kaay gi de la Quotidien nee na Ousmane Sonko ak Khalifa Sall dañoo bëgg contrecarrer ànd bi nga xam ne Macky Sall na ko ak Idrissa Seck yéene kaay gi di ne Macky ma ngi doxal ab loi boo xam ne dafay effacer far lépp loo xam ne jëm na ci infraction financière économique te bu boobaa Khalifa Sall ak Karim génn ci mball gi yéen a gis ne Macky Sall la mu bëgg mooy famille libérale ñu daal leen di dajale waaye nag ana lan moo ko ci mën a fekk ni ay risque yéen a kaay gi de la turbine ñu xëy fekk fa Moustapha Diakhaté yàq na musiba ak mbelengaan ki nga xam ne mooy Idrissa Seck nee na Idrissa Seck c'est fini jeexal na Macky Sall daf koo jéng Macky daf lekk Idrissa Seck daal di ko cay génn maanaam ay galère financière yéen a kaay gi de la Tribune nee na Idrissa Seck mbaadu dafa bëgg a wuutu Farba Ngoma nekk géwlu Macky Sall di ko wayal di ko feccal di ko xalamala ndax nag ndaje mi nga xam ne doon nañu ko amal niki démb ca centre international conférence Abdou Diouf Idrissa Seck moo ko tocc ndax bi Macky Sall waxee ba pare la Idrissa Seck jóg di ko tàcc yéen a kaay gi de Les Échos nee na Idrissa Seck sa jam ñaajo da doon feccal Macky Sall askan wa nga xam ne ñoo fa daje woon dañoo waaru mujj jéppi lool Idrissa Seck réew xëy nag di ñu xamal lan moo xewoon sa jam ñaajo sa centre international conférence Abdou Diouf dafa am ab prix boo xam ne dafa jëm ci wàllum gëstu maanaam wàllum recherche prix Macky Sall prix boobee nag démb ku ñuy wax professeur Fatou bindu saar moo ko gagné njiitu réew mi di président Macky lu jëm ci jàppale kuréel googu nga xam ne ñoo yëngatu ci lu jëm ci wàllum recherche génne na lu toll ci benn ci ay milliards yéene kaay gi de laas mu ñu xamal lan ñu askanu Sénégal fan la ñu jëm ak Serigne Mbaye Thiam mi nga xam ne moom lañ dénk wàllum ndox mi bu passé ñàkk ndox gi nga xam ne moo am ci réew mi Serigne Mbaye Thiam laaj nañ ko na ko ndox mi jamono ji cher na ba maara day taali Serigne Mbaye Thiam ne awuguñu sax ci yoonu wàññi ndox mi yéen a gii de Les Échos nee na Sénégal bëri na ay scandale ñu xëy ci journal bi fekk fa Birahim Seck bu Forum Civil la xëy na wax ci contrat bi nga xam ne moo dox diggante Sénélec ak ak li ak violation code des yi nga xam ne gis na ko ci ak yaafus gi nga xam ne moom la ci Macky Sall boole yéen a gi dee sat xëy ci Ligue des champions ak match yi nga xam ne moo am niki démb nee na équipe bii de Leipzig daan na éliminer Manchester United Juventus de Turin bu Christ